المشفع أراني إذا ما جئت يوما محمدا تحقق آماني كما أتوقع محمد خير العالمين وسيلتي أتاك خديم ضارع يتشفع Mourou Maar la di goro ci Mbaye Gueye ne doomam lay denc naa baax rek ak yaatu ak di ñu digal toujours lu baax loolu rek la moom moom wax dëgg yàlla ba may may doomam sasuma si dara boolema si dara teguma ci loo xam ne du leen la ba tey ji xëy na nag daan naa fa dem di ko seeti ba ni mu feebaree nii waaye sant yàlla sunu boroom rek ne ne yàlla bu la joxee buy jël ak bu lay jox yëpp benn lay doon donc sant yàlla suñu borom bu mu ko jëlee si bisimilah alhamdulilah rabi alamin ne jox nañu ko si bisimilah rahmaani rahim bu ñëpp ñu bëgg si moom kontaan si moom gis fu ñu teg si yoon yi ñu teg wax dëgg yàlla amuñu lenn lu ña lu ñu def lu dul di ko ñaanal rek yàlla xare ko àjjana yi gën a kawe si àjjana yi te jégal koy bàkkaaram àdduna ak àllaaxira te fu mu jëm yàlla na fi yàlla yóbbu wax ñu góorgóorlu rek ne royukaay dem jóge na fi monument jóge na fi un monument moo jógee tey Sénégal ci axlu làmb bu ñu amee respect nag xale yu ndaw yi nañ ko jël continuer ko si ñoom te xam ne kii dafa liggéey liggéeyal Sénégal liggéeyal génération am liggéeyal génération yi stop ba tey génération bi du mujjee ñëw kon tey jii lu ñu war a def lu dul sant yàlla suñu borom rek lu dul jéem a roy si moom te xam ne ku baax rek moo fi jóge te ku baax ku ne loolu def lu dul roy lu gën ci moom rek nga jël yóbbu ñu leen ñu booloo nekk benn bu ñu fi jógee ñaan nañ ko yàlla yàlla na yéex ñu am way bu mel nii rek mu gën si barke borom moom maa ngi tudd Abdou Guèye di rakk ci ki génn àddina ñox Mbaye Guèye Ababacar kàlla nii rek la mbokk mu ne moromam ku génn àddina bëgg nga ku la taxawu ñu nag suñu mag ji moom rek lañu xam dañoo gimmi rek eh, mu yor ñu ñun ñëpp nag suñu waajur teel génn àddina mu nekk taaw kër gi de neuf personnes dont une fille mu nekk ak ñun di daana ko jóg ba lu luwaay mën ginnaaw yàlla moom la ba kenn nekk ci loo xam ne ku ci nekk daal am njëriñ donc kooku ñoom ñu ngi koy reconnaître loo koy reconnaître ci moom ah léegi nag li ñu defaloon ah loolu lañ koy loolu lañ koy delloo rek mooy taxaw ko ndax ku génn àddina bëgg ko taxaw famille bi taxaw na eh, pour yóbbu ko dénk teg ko ci loxo suñu borom moom nga xam ne moo ko fi indi woon fatawaar kàlla bu mu indi tàgguñu ñu ko jël tàgguñu donc ñu ngi koy delloo jox dalal borom bi di yàlla yàlla yaram ko ko ah mu nekkoon nag koo xam ne ko baax la ndax dëgg-dëgg na yàlla du wax sax ci sport bi man damay wax rek ci en tant que frère parce que sport ñu ko war a wax nañ ko wax mais li may wax man mooy daal taxaw nañu fi mag war taxawee rakam fu ne nag lu ne def na ko pour que ñu nekk lu ñu nekk tey lu nekk def na ko pour ñu nekk li ñu nekk kon rek ñu ñaan yàlla yàlla mi nga xam te ne mooy yërëm yàlla na yërëm ko te jégal ko. waaw kooku ci si doon sport la ndax moom il était multidimensionnel xam nga làmb rek la ñuy wax souvent waaye dëgg-dëgg na la man si la ma gëmmee sa xool ko mooy athlétisme boxe football basket fii ca bopp taxaw ñoom taxaw yooyu yooyu yooyu kuréel gëj bu ah jafe na la ku taxawoon noonu sport te nekkoo ca. mbër moo xam ne taxaw football ca GIA di def lu nekk si junior yi taxawu ko basket bopp taxawu ko as fonctionnaire taxawu ko boxe bi nga xam ne Omar Fall moo doon boxeur am mu ci def lu nekk ay fatuwaat kàll la donc loolu daal laa ci mën yem pour la pour le parce que nag rakk moom rakk daal di wax ci témoin ci magam day xaw a jafe waaye dëgg-dëgg neex yàlla ah ikoon la woon de Fass daal jaraloon na ku ne Fass. jaraloon na ko lu nekk lu nekk def na ko pour Fass si waaye faas defal na ko lu ne mun naa wax ne sax Fass moom moo amel Fass Fass amalu ko donc euh, asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu maa ngi tudd Abdou Guèye di rakk ci moom ah, dëgg-dëgg mu taxaw ma ci lu nekk nag lu nekk maanaam daal maanaam daal fu mag mag taxaw rakk taxaw taxaw taxaw nañ ko ah, donc donc loolu daal loolu laa voilà voilà loolu la loolu